Kibari, Kibari, die RFI. une heure di benn waxtu RFM ñu di li ci gën a fës leeral yi directrice hôpital kaw laa ci mbirum liir bi newoon dafa fàttu te fekkoon ne mi ngi dund xadijatu saxte bi weddi liñ ne liir boobu dañ ko tëcc diruk ñaari waxtu cib kees mu fekk nag aide infirmière mi nu jàpp ci mbir moomu nekk ba léegi ca police kaw la ko nit ñi amee laago ci seen bërëbu liggéeyukaay yi tàmbaleeg xifal tey jii li ñu bëgg mooy nguur gi yokk xaalis bi leen di jox ministre yor wàllum liggéey Samba si xam na ne nguur gi mi ngi liggéey ci wàll woowu toogaanu ñaxtu la liggéeykatu pos yi xëy ci tey gi ngir ñaawlu liñ gis ne nguur gi dafa bëgg rey seen kër googu di poste ñoom liggéeykat yooyu nam amal beneen doxum ñaxtu ci fan yi di ñëw donte taw na ci gàq yu bëri ci réew mi lu ci mel ni Kédougou waa météo leeral ne nawet bi tàmbalegul te sax tàngaay la ñuy xaar ci fan yi di ñëw dañ teg xibaaru bitim réew tàggat yaram li ci yéen kaay laa laata gis-gis ñuy waxtaane tey euh, ndimbal li nguur gi jegleel njaboot yi néew doole jaarale ko ci téléphone yi di cash transfert mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sulu ay faram-fàcce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

doxul doxul diggante euh, biñ ne euh, ndax xale boobu fàttu na yóbbu ko def ko cib kees ak tamit bañ koy réanimer moom tamit nee na lépp luy matuwaay jëloon nañ ko médecin de garde tamit chasse ne mi ngi ca l'hôpital ba dañuy déglu Xadijatu Saaxte be ci micro Pape Mbaye Diaw. maa ngi dégg nag ñu naan diggante bi euh, am na deux heures de temps xale bi dañ ko yóbbu morgue ba ak cathéter ak perfuseur loolu amul loolu amul diggante bi matu ci cinq minutes aller retour.

continuer soins yi ba 22h30 yaga du y a def limuy def. du du du yoo xamni parce que si sañon du am. 5 minutes yoy sax ëpp na ci ñun. mais du 2 heures de temps wu une heure de temps bay ra 2 heures de temps. maintenant procédure euh, administrative yi enclenché nañ ko. benen aspect bi moy autorité judiciaire yi donc fofu aussi duñu ñu man du dul déglu kilifa yi ba xam fan nga ñuy mujjé décision buñu nous jël rek ñun ay ndaw lañu. dinañ ko yéeg yégal suñu kilifa yi pour ñoom ñu wax ñu la conduite à tenir di wax rek ni dinañ ci liggéey ak médecin yi ak CMA ba nga xam ni lu mel nii dootul am mu nekkoon euh, Khady Diatou Sarr Kébé jiite l'hôpital la Hadj Ibrahima ñas bu Kaolack ci mbir moom ki nga xam te mooy aide infirmière bi ñu gis nag moom bi bindoon këyit ne liir boobu fàtt na tax ñu yóbbu ko ci morgue ba laata ñuy gis ne fàttuwul moom aide infirmière boobu ba léegi mu nga ca garde à vue ca commissariat bu Kaolack nga xam te ne policiers yi ñu ngi wéyal l'enquête bi une heure tegal ñeenti minutes. askan wi wéy ci xibaar yi wax ci leneen di xiifal goo xam te ne nit ñi amee làggoo ci seen bërëbu liggéeykaay ah, tàmbali nañ ko tey ci suba li ñu bëgg nag mooy leen case de sécurité sociale di jox bu ñu amee accident li leen di fay ñokk bu baax a baax ndax dañu gis dafa néew loola ñoom sax nee nañu xiifal boobu dañ koy wéyal ba fekk li ñu bëgg ñu am ko seen taw daal di saafarawu salimataaw Salimata kontaan ñu si dellu si léegi mu jëm ci xiifal ko nga xamante ne nit ñi jëre laago ci seen bërëbu liggéeyukaay euh, tàmbali nañ ko tey ji ci suba euh, ca kanamu caisse sécurité sociale li ñu bëgg mooy liñ leen di fay ñu daal di koy yokku Salimata. ñu yor ay pancarte dox beeg taxaw bi jafe woon loolu si ñoom mu jafandu ci ab beekee ngir wax li nga xamante ni moo ko nakadi Mamadou Niang moom mooy secretaire général bu association ñi loru.

weer bu nekk bu nekk 10 000 francs kon nan la si dunde liggéeyatul am na jabar am na ay doom nan lay def. grève bu xiifal bi nag ñu tàmbali tey duñu ko dakkal tant lii ñu bëgg fajuñu ko. moo tax tey ñu ngi fi fële toog xiifal loolu lañ bëgg ñu toog fi toog fi xiifal dañu quitté ba xëy bu ñëpp bu ñu dee. kon ñu ko defoon talaatay ndeer donc incha allah na ko def tey ñëpp ñu xam ne tey noonu leen dundee bu ko defee ñu war na jàppale. association bi di wo njiitu réew mi wante itam jeurine gi ñu dénk wàllum liggéey lu ëpp touru noné la ñu président de la République mom moy seule personne fille, seule autorité dans ce pays bon dégg mu tudd sax wax ak santé travail monsieur Samb je défie tous les journalistes est-ce que monsieur tok dégg mu dégg wax wax ak santé travail la question sociale daf na fi temps journée qu'est-ce qu'il a parlé il a parlé de la prévention des accidents mais il parle pas des accidents de ñu bëggoon dugg biir caisse de sécurité sociale wante loole antuwut ca buntu ba la ñu mujjee taxaw ci naaj bi ngir ñaxtu wante itam wéyal seen gréewu xiifal bile Salimata Aw euh, moom moom mu sax di ministre du travail mi ñu tudd euh, Samba si euh, moom nag indi leeral xam na ne nguur gi def nay jéego ngir jàppale ñoo nga xam te ni dañoo jëlee laago ci seen bërëbu liggéeykaay moom ministre sax ne bind na lu yàggul dara bataaxal conseil d'administration bu caisse sécurité sociale ngir ñuy yokku lu ñuy fay ñi amee accident ci seen bërëbu liggéeykaay ñu déglu kàddu yu ministre Samba si. lépp li nga xam ne ñoo ngi koy def muy jëm ci payor mbala lu ñuy jox askan wi di ko jëlee ci gafa nguur gi dafa am ay yoon yoo xam ne ñoo ko ŋànk yoon yooyu nga xam ne moo ko ŋànk boo koy seet mu ngi ci benn xët boo xam ne mu ngi ci code de sécurité sociale bi ak benn décret boo xam ne jël nañ ko depuis quatre vingt nga xam ne moom mooy fësal maanaam euh, wareef yi nga xam ne war nañ ko euh, sàmm bu fekkee ne bëgg nañu yokk maanaam li ñuy naan rente accident du travail ak maladie professionnelle li ñuy seetlu mooy lan moo nekk foofu si koom ndax dafa am loo xam ne dañ koy teg di ko cotiser ci branche accident du travail ak maladie professionnelle ñu xool tam naka la payoor yi yokkoo mbala wala ñàkk ko yokkoo naka la salaire minimum interprofessionnel mooy SMIC bi fu mu toll loolu lépp boo ko nattee ñoom bu ñu ko nattee la ñuy xool nag li am euh, bu ko defee bu fekkee ne jàpp nañ dañ ko war yokk maanaam rente yi benn arrêté boo xam ne ministre de finances et du budget ak ministre du travail ñoom ñoo koy jëlandoo boobu arrêté moo koy may ñu def ko booy seet ci yokk yi nga xam ne yokk nañ ko ci diir yu weesu yi benn bi 2011 la woon yokk nañu téeméer bu nekk euh, fukk yokk nañ ko ci euh, mu tàmbali si premier janvier 2010 noonu lañ ko defee 2016 mais mais boobu temps si septembre 2016 dañ jël décision boobu 10 le er janvier 2016 noonu tam 2019 lañ ko euh, mais yokk boobu nga xam ne nañ ko en 2019 le 23 juillet

Ah, bokk na nag kër ga nañ ko yoree ñu daal di koy soppi waaye tamit ah, kàddu yu président Macky Sall yi yëkkati bu yàggul di xam ne parce que mu toll nii kenn mëntu ko sauver li ci sos rek ah, daal di beneen entreprise ñoom nag ànduñu ci loolu nee neen sax ñoom dàqu ñu amal ab doxum ñaxti ci fan yi di ñëw ñoom liggéeykat yu poste yi doon amal toggaanu ñaxtu tey ji suba la ñuy déglu secretaire général syndicat bi leen ëmb Ibrahima Sarr ci micro Mamadou Ly xamné nous la yalla tek tay ci bop bu di addu ci yu mel daf avec beaucoup de responsabilités. mais addu aussi en tenant compte d'informations mais aussi

saa yu ñu ñëwee ci suñu bérébu liggéeyukaay war ci am li nga xam ne moom la ñu warloo ak ñoom duñu ko mën tey jii da ngay gis ay fonctionnaires de l'État du Sénégal duñu mën a fayeku seen salaire nga gis ay militaires yoo xam ne ils sont au fin fond du Sénégal tey jii duñu mën a fayeku seen salaire parce que poste moom moo nekk fépp poste moom moo mën a jottalee xam nga li nga xam ne moom la askan yu bëgg mu am ay problème de sécurité yoo xam ne dafa posé wu am ay problèmes sociaux yoo xam ne dafa posé wu Je réew mi di génn bëgg problème pour xam nga ay recrutement yoo xam ne moom ci boppam jàpp na ni directeur généraux yi nga xam ne moom am sañ-sañ di leen nome ñoom ñoo def ba pare di wax ils sont payés à ne rien faire bi mu ko waxee dafa laal suñu dignité laal dignité suñuy famille mu nekkoon ibrahima eh, sar eh, jite syndicat bi ëmboo liggéeykati eh, nekk ca poste waxlu sa xal wàllu njàng mi ak ñi xam te ne ñooy jàngalekat ñoo doon tàggat crfpe bu nek ca sédio ñoom nag seen tàggat noppi na ba daal di ñuy génn ngir mën a dem nag ci classe yi daal di tàmbale di jàngale Bakary Konté. 25 ci 275 élèves maîtres yo xamante ne ñoo amone concours CREM ñom démarré nañu officiellement une formation ci centre de formation régional bu enseigner yi Nala Ndiaye directeur bu CRPE bu pour d'abord nek en contact ak nous, mais aussi nek en contact ak.

yoon bii ngeen di jël. moom nag miy ñaax enseignants yi ci conscience professionnelle. bari na ay jàngalekat yoo xam ne nii boo leen gisee ñuy jëf ci biir métier mi da nga leen di xeet mais fekk du jàngalekat bi nga war a xeeb mais moom ci boppam nga war a xeeb parce que moom moo jëfe noo xam ne nii da nga koy xeeb joxe naa fi ay exemple yu bëri jàngalekat daf la war bu heure liggéey jotee nga teew sa classe a huit heures bu heure wàcc jotee nga wàcc jàngalekat daf la war li ngay jàngale nga di ko préparer bala ngay dem préparation bi dafa bari ay fànn matériel a ngi ci ni ko war a jàpp ci sa bopp manam bind ko mandargal ko ba nga xamne bo jangale do def fo toll rek jël sa fiche de préparation di lire de xool fan nga toll ak yu demee non fi nak ci centre bi lepp fi manqué ñi ngi ci ay jafé jafé yi tar. comme ni ma len ko waxe amuñu formateur permanent formateur yi dañuy joggé ci IEF yi ci IA yi ak KOSP foofu la ñuy jóge que équipement yi doyul bo gisee table yi nga xamne mom lañ ñu envoyé prévoir ko pour élève maître nga xamne élève maître bu nekk dafay am table boppam ak chaise boppam bokul ak table yi nga xamne par exemple c'est prévu pour des élèves de lycée. malgré jafé jafé yo xamante ñu ngi koy dund du fi ci centre bi centre régional bu formation professionnelle éducation mom at bu nek di enregistré ay résultats yi bax fi ci Pakaw Bakary conté Sédhiou Radio Futur Média. Bakary Konte une heure tégal fukki minutes ak ben ca mbayen ak Kër Sédhiou ci. pour man RFM moy Radio di gaw ci xibaar RFM xibaar yu wóor ay taw ñu koy nemmeeku fan yi ci yenn gox yu ci réew mi bokk na ci ca diwaanu Kédougou ah, foofu nag eh, lu toll ci 33 millimètres jot nañu ko fa nemmeeku leeral yeeg eh, Ibrahima Diabakhate. taw yu njëkk yi wane nawet gi door na fii ci région bu Kédougou bu ñu sukkandiku ci li ñu taataan ci ndox wane na daal taw yi moom am na doole fële ci Xosanto fi nga xam ne nemmeeku nañu li tolloo ci 33 virgule 2 millimètres Makko moom am na 30 millimètres Kédougou 10 virgule 9 millimètres fële ci Fongolimbi nemmeeku nañu foofu 9 virgule 1,5 mm même su fekkante ne jëmmu nawet gi moom wone na taw yu teel ak nawet gu nar a yàgg li ñu mën rek moo nawet gi moom door na ci diwaanu kédugu seku balde mooy chef de service sddr bu kédugu bon mun nañ ne nawet bi door na comme ñuy kédugu te météo aussi waxoon na ren nawet bi dina teel a démarré donc comme ñuy mois de mai taw na benn yoon ba ñaar yoon am na localité yoo xam ne c' est leur deuxième pluie soo jëlee ay côté salemata donc kédugu c' on peut dire que c' la première pluie utile li aaju ci jumtukaay ak ci jiw yi mise en place yi moom mu ngi door a tàmbali Sékou Baldé bon euh, jumtukaay en tout cas yëpp am nañ notification semence yi yëpp génn na pour euh, Kédougou donc commencé nañ def mise en place yi nee naa la maïs bi dem na foño bi donc euh, engrais bi aussi ñu ngi si liggéey pour notification yi am na di si une deux semaines mun na mu génn matériel bi depuis un an muy fii donc amoon na bénéficiaire lu ñu joxoon ñeneen ñi dañuy tardé pour ñëw génnee seen matériel parce que amuñoon xaalis pour fay mais temps yi bari évacué nañ lu suy dess ak somoir aussi na ñaari somal mo fi def xaw ma ñari fi mu nekk ni producteurs yu bari ñu ngi jublu ci défrichage tool yi ak défarat faro yi ibrahima jabaxate ki duggu rfm ibrahima jabaxate ci diwan ci gan sor taw it taw na fa nak dem ci ngone wa metu xam ne ne nak tangay yi mom lañ nara am ci lu gox yu bari ci rew mi ci fukki fan yi ñu jëm tax ñom mu ñu wax ne nawet bi tambali deug deug ci biir rew mi pap ngox njay nek ci anasim yitte wala météo ñu déglu ko ci jokkam Mohamed Ali Moubax e eh, bu ñu xolé tay ci wala sax def na bu ñu wéso fan yi wésu gis nañ ke ne jot nañ ay taw taw yu neew ci boori Kédougou waye demb mom ci altiné bi taw yi dafa jotto wal yam jëm bo boori Casamance bu ñu xolé Kédougou ñu fa nat fukki millimètre ak ben ci demb ci journée bi bande fa ci am na fa juroom Kasonto am na fanweeri milimètres ak ñett fanweeri milimètres ca Mako euh, lu ci mel ni Brassa am na fukki milimètres ak benn bu ñëwee boori Casamance nag foofee taw bi xaw na fa gën a bëri Ziguinchor fukki milimètres ak benn ñaa gis am na ñaar fukki milimètres ak juróom-ñaar fanweeri milimètres ak juróom ñaar ca Goudomp ji banaar am na ñeent fukki milimètres mooy euh, quantité bi gën a ci euh, taw démb bi Diattacounda am fukki milimètres ak juróom euh, Simbandi balant am fanweeri milimètres ak ñeent ci tënk rek lii mooy taw yi nga xam ne jot nañ ko am démb ci altine bi xoolee nag ci tàmbali tey jëm nag ba ci ñaar fukki fan ci weeru mais daanaka fileek fukki fan yii di ñëw seetu ga ni tekkaaral la am ci réew mi yëpp gannaaw taw yi ñu jot am tekkaaral la ñuy nemmeeku ci réew mi Euh, ba tax na sax ngelaw li ñu woowee armatan dafay dellu si waat ci biir dëkk bi ngelaw loo xam ne diggante Mauritanie ak Mali lay jóge ngelaw loo xam ne day ànd ak mbooya waaye tamit tàngaay mu nekkoon monsieur météo Pape Ngor euh, Ndiaye wax leneen jëm ci wàllu mbëkk mi ak matuwaay yi nga xam ne nguur gi jël na ko ngi daal di koy xeex tax sax nee na ñu mbir yi wàññeeku na bu baax a baax te nguur gi nag euh, jël na ci matuwaay yu war yëpp caat yi yëpp loolu nag ki xam ne mooy ministre de l'intérieur naka noonu tam ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll wi euh, tey ji nag la doon teewee ndaje boo xam ne directeur général ak commandant force de sécurité yi ñu ngi koy amal fii ci Ndakaaru Aminata ba teewoon it réew Sénégal dal di tek ay pexe yu bëri ci socio économique Antoine Félix Diom, di jëwriñ bi yore wàllub kaaraange bi réew en décembre 2020. décembre 2020 bi weesu njiit réew mi nag euh, na ca ministère bu intérieur ab comité buy xeex lépp lu jëm ci ñuy faral di mbëkki des migrations irrégulières loolu nag tax na ba ñu daal di wàññi bu baax a baax mbir moomee waaye tamit jot nañoo teg loxo ci ay réseaux yu ci yëngu maanaam des trafiquants. de trafiquants. ginnaaw ñàmmi bi la ñetteelu conférence bi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii ci Dakar li ko tax a jóg moo ñu gën a waxtaanee recommandation yi nga xamante ne dinañ ko mën a jëlee ci bile ndaje Amadou Philippe de Andrés nekk ki teewal ONUDC. waaw ndaje bi nag dina tax bañ daal di nangu waxtaan yi nga xamante ne amal nañ ko waaye tamit daal di toppandi engagement yi nga xamante ne jëlee nañ ko ca ca ñàmme. Union européenne daal di itam ci xeexub migration irrégulière

ñetteelu conférence directeur généraux yi ak au commandant force de sécurité yi ak au fonctionnaire yi nekk ci wàllub yoon di amal ci durup ñetti fan ap ndaje ci ginnaw lolu ñu fas yéene ay recommandations yo xamantene dinañ ko jëme lépp lu jëm ci xex jaayup nit. Aminata bax dañuy daane rek wàllum politique ak le saxool élection législative war fan wéri fan ak ben ci weeru juillet bi ñu di ñew ci lolu nak direction générale des élections nek ba léegi di càmbar liste parrain yi nga xamantene ñom la coalition. coalition yi ak parti joxe di ci tey di ñaareelu fan bi ñuy càmbar di xool ndax dëppoo te lépp jaax na ci yoon ñi di waa Aar Sénégal nga xam te ne kuréel gu bees gi ñoom Abdourahmane Diouf euh, Thierno Bokk ak ñeneen taxawal ñoom nag matal nañu seen parrainage euh, ñi daal ci profito tamit tontu euh, ci li ñenn di wax ne ñoom opposition lañu ñu ci opposition bi maanaam dañuy xeex opposition bi te Macky Sall moo nekk seen gannaaw ñoom nag leen loolu dara amu ci ñi koy wax ñoom day yàq de rek Mamadou Diomaye Dioum mooy mandataire bu coalition boobu tudd Aar Sénégal te tey jii moo a ganuk RFM matin ci opposition bi lañ nekk waxaguñ ñu yeewi dafa bon waxaguñ ñu yeewi euh, baaxuñu ñun li ñu jàpp mooy yeewi ñi ay acteurs politiques la ñu nekk ci opposition bi donc di liggéey xëy na ñu ñoo ci jiitu parce que en terme d'organisation ñoom ñoo jiitu maintenant ci diggante bi am na yeneen leader politique yoo xam ne jàpp nañ ni am na benn offre boo xam ne war nañ ko defal sénégalais yi bu bokkul ak li nga xam ni moom lay yeewi di proposer donc aar jóg proposé loolu Sénégal xëy na ñu jàpp ni xëy na ñi nga xamee ni ñoo nekk ci biir aar am nañ jaar-jaar quand ci réew mi te ñu ràññeeku lañ ci réew mi ñoo xam ne aussi am nañ taxawaay aussi ci réew mi donc xëy na loolu mën na jàpp ni mën na xëy na am ñu mu tiital mën nañ jàpp ni mën na xëy na am na ñu mu yàqal mais ñun pour ñun diversifier offre bi la rek moo tax xëy na en tout cas ci li ma xam man amul ay reproche wala ay attaques yoo xam ne jóge na ci aar dem ci beneen membre opposition bi contraire bi mooy am loolu nag moom euh, dañ koy ñaawlu. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew ànd ceeg euh, Seydou Nourou baax Seydou Nourou ñu ngi lay nuyu. di la fay bu baax laa njagu jën. Gàmbi lañ koy tàmbalee foofu nag euh, yoon fas yéene topp président ba fa ne woon Yaya Jammeh. loolu daal la ñuy loru woon ci nguuru ka fa nekkoon président wax nga ko Yaya Jammeh moom la ñu laaj gouvernement bu Adama Barrow nak amna na ba ñaar fekk fan ak ci weer wi ñu né ngir dal mu yëkkati ay kàddu jëm ci recommandation yo xamné commission vérité ak réconciliation teg nako ci table gi mu jox joxoon rapport bi danaka njeextalu weeru novembre bi ñu wessu gannaaw ñaari at yo xamné ko nekkon ci liggéey bi commission bi nak moom dal di oté ngir dal ñu teg loxo top ñi nga xam ñu amal ay jéey yu doy war sax ci bakki kii ya Yahya ke président fofé ca Gambie ca yi ay euh, soxna nag euh, ci dëkk yi di Teninko ak Jondiri mhm, euh, ñu nag jàpp ne ci ab communiqué boo xam ne état major général bu armée bu may na moom wax daal di fësal ne daal ay way terroriste lañu ca jóge ca Katiba ca Masina di wëy di amal ay ñawte foofe teg ko ci ndoddu askan wi waaye nag ñoom ci ay mission yoo xam ne amal nañu ko ci yenn gox yi foofe nga xam ne nag fala ya fi jógee ñii nag di ay fama ñoo ko amal gox yi bokk na ci Teninko ñaari obus lañ fa teg loxo daal ko sandi la tàmbalee nooru wala bët saalumu dëkk ba euh, foofe ca jafarabe amul nag ku ci ñàkk bakkan waaye nag beneen bi moom ñu sandi ko la tàmbalee jonjor yi fukki obi lañ fa teg loxo ñu daal di fa faat ñaari tout tànk ak ñeent civil yu ci amay gaañu gaañu méttee métti dem ba république démocratique di Congo xam nañ léegi lu waral cong goo xam ne ay rebelle defoon nañ ko ci benn mine. bilan bi sax léegi mu ngi ci juróom fukki bakkanu ci xott muy nag ñaari groupe armé di ay rebelle kenn ki ñu koy euh, wax Codeco euh, taxaw nag ngir aar intérêt ab communauté bu ñuy wax lendu beneen bi nag ñu koy waxee Zaïre noonu koy tuddee. mu jege lool ñeneen ñu ñu wax EMA ñaari groupe nag yoo xam ne euh, ku ne daal jàpp ne yaa war a contrôler carrière ba foofee ca miin ba dimanche bi weesu euh, metti woon na lool ba fajar jotee ña fa doon gas ak ñeneen ña fa yeewoo nag euh, daanaka

ñu koy wax Chimère Guèye sermé bi nag li ci gën a bàyyi xel mooy daal ay seede ci ay vidéo yoo xam ne daal dafa jëm ci wàllu institution euh, ci daal seen xarañ ci wàllu cyber sécurité gobiaye bi moom ngeen déggoon sànq suñu xibaar yu mujj ñu woteeli biti réew Justin Trudeau di premier ministre bu Canada ma nga ca Ukraine daanaka ubbi waan na fa sax Euh, lii di ambassade du euh, Canada ca euh, ca Ukraine gannaaw bañ ko tëjee ci weer février ba tey xam ngeen ngir ko waral mu nag jàpp ne dañ fa taxaw ngir daal di gunge jàppale Ukraine ci ni mu waree Mamadou Aïcha Ndiaye. ginnaaw bu mu demee ci réewum Ukraine jàppale ji waa réew ma kii di Justin Trudeau di jëwriñ ju njëkk ci gouvernement bu Canada dem na ba tijjiwaat ambassade bu Kiev bi nga xam ne kii réew Canada moo ko moom ca Ukraine loolu nag nekk na mbir moo xam ne bi dafay gën a fësal jàppale ki nga xam ne kii Canada mi ngi koy jàppale. jàppale Ukraine ci xeex bi nga xam ne Russie song na ko ci kaw loolu sax ñaari njiit réew yi Justin Trudeau ak Volodymyr Zelensky xaatim nañu yeneeni këyit pour jàppalante goo xam ne gi dañu mën a taxawaat tabax réew ma waaye tamit luy jëm ci wàllu jumtukaay lépp luy jëm ci wàllu kaaraange ak li nga xam ne kii dina ko jàppale ci wàllu koom moomu mu mën a dox ci seeni diggante Justin Trudeau ginnaaw bi mu dagaatee drapeau kanadaa bi foofu ambassade Ukraine bi da nekk ci dëkk bi ñu naan Kiev wane daal mbégte mu am ci réewu Canada taxawaay gu mu taxaw bañ a seetaan Ukraine ci song googu nga xam ne Moscou song na ko. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Canada Mamadou Aïcha Ndiaye rajo Futurs Médias di ko jaajëfal El Hadj Ndiogou Diène ñu xalal mënal jaan ci ñoor ngir xibaar tàggat yaram. di lay jaajëfal yow tamit Hadj Seydou Nourou Ba jërëjëf. kon Seydou Nourou daal di xajal Malal Junior Diagne jaañ maa maa ngi laa fay euh, Ndiobo Diène. xibaaru tàggat yaram dañ koy door ak Jeux olympiques ba ñi nga xamante ni dañoo lu euh, ñam Sénégal nag daje ak Allemagne ci quart de finale yi. loola ñeenti waxtu si ngoonu tey gi laa doon ca réewu Brésil la xewe waaye saa si tembe nii ñu ngi ci quart de finale yu njëkk yi dox diggante Ukraine ak Italie Pologne dina laale ak waa Turquie ngoon Iran mooy di joŋante ak waa France. football bi si Sénégal ak U17 yi mooy xale yi seen ab toll ci fukk ak juróom-ñaar ñu bokk ci équipe nationale bi ñu ngi waajal tournoi UFOA ji gannaaw lëlu bu njëkk wunu amoon am na geneen lëlu bu nu sumb ngir waajal doogale tournoi nga xam ni ña cee amoon nag dañu mën a dem ci coupe d'Afrique bu nu jagleel tout tànk yooyu le ka leen ci tàggat nag di Serigne Saliou Dia xayma na la mu jot a liggéeyandoo ak gone ya ak itam euh, naal yi mu am ci lii di ñëw ci wàllu wàccaay gi Soxna Thiam lu ñeel bu ñëk waccay bi staff technique bu équipe nationale U17 bi nek dafa daal di liggéey ak lu tollu ci téeméeri joueur ak fanweer ak juróom-benn ñu daal di koy xaj nak ci ñenti groupe yu fanweer ak ñeent ci lolé nak kay tagat équipe nationale bobé di Serigne Saliou Dia di ñu wax ni amna na ci liggéey bi ñu jot def. il fallait ñu def ay supervision pour xol xalé yi nga xamni vraiment mën susceptible ñëw ci équipe nationale muy 2006 2007 ak 2008 CAF li jël en considération mais année de année de compétition année de 2023 on avait presque nooy de 136 ak ñi ñuy invité ñooñu bi ñen xolé xoolee dañ leen séparé daf ñaari groupe bi ñu wàññee ñaari groupe aussi dafa nañ benen phase mu ne xoolaat dañ leen def ay entraînement wala def ay test plus ou moins après pour aboutir ben groupe moom moomee ñu talal suñu micro rafeluna itam ligue ba nga xamanteni def nañ ko sur le plan technique pas ça je pense am satisfaction parce que xalé def na dañu ak ben bagage technique bo xam vraiment man sax jaaxal na c'est le lieu ñu félicité école football yi nga xam même ñu ngi ci ruq di góorgóorlu ça veut dire que xale bi fi mu dominer ñu dominé nañu te joueur bu dominer en balle bi rek je pense li ngay mottali nit ñi man 2000 en 2006 cadets je pense que Rennes ils ont moins de problèmes techniques que que que année boobu. lu ñeel ñaareelu pàcc bi nak lu tollu ci fanweer ak juromi joueur nañu daal di woo sélectionneur bi nak diñu xamal ni dañu insister bu baax ci IRM yi ngir baña am benn mbetteel. defe naa loolu mooy gën difficulté bi parce que bo xolé même wañu lu at des fois problème maturité osseuse mën nañ la ci wañi. moo tax jël nañ devant yi def benn marche bo xam am na 60 noyaux pour buñu gënné kenn ñu duggal ko comme ça ça nous permet ñu baña a ñaareelu phase boobee nag ñi ngi koy tàmbali ni ki tey ji ci talaata ji jëm nag fukki fan ak ñeent ci weeru may gi ñu nekk wàccaay yooyee nag la ko waral moom moo di tournoi UFOA à U17 ba nga xamante ni moom la ñuy waajal te nga xam ni te nañuy mën a jaaree ngir am seen qualification jëm ci kanu catégorie bile dañuy wax ci leneen malal mu jëm ci wàllum basket euh, ak euh, li ñuy euh, amal ay jongante ngir nag. dabu calendrier bi dabuwaat match retard. ngir ah. dabu calendrier bi ci première ligue. tey ji jongante bu am solo mooy dox diggante Liverpool ak Aston Villa ndax keroog dañoo tëwoo euh, ak ñoom doon jonganteel Manchester City daal di duma ñoom doon jonganteel rawe leen ñetti poñ Liverpool nag ngir mu dab ñii di waa City tey faw mu duma waa Aston Villa ngir témboo jeeg ñooñee ngir xëccoo ba ca euh, google Angleterre gën a mën a wulee ñaay ca kaw ñu ni euh, ca Espagne moom itam Valence ak Betis ñoo fa joué Atlético de Bilbao ak Grenada Barcelone dina jongante ak waa Celta ca Jurbel dañuy jeexale ak coow la am foofu ci wàllu basket ba gannaaw bu nu fi génnee ay kàddu démb di songu ki ñuy fa fal muy njiitub euh, ligue ba kii nag di euh, Abdou Dia vice président bu euh, boobule ligue indi na ay kàddu tontu ña nga xam ne ñu ma di waa kër Serigne Maye Seck ndax ne dañ leen a fal te pañen bi amul lenn lu ca gàkk te itam kenn du leen tere liggéey ci micro Pabala ba Pabala Gaye la waxee lii. bu fekke ne dafa am combat bu ñu porter nañu xol benen anam bu ñu koy porter ñun nekkuñu ci deal newuñu ci ay tiaxan ab ligue mi ngi dépendre ci fédération mom neena texte moo tax ne fédération waru renouveler ligue ci ban rew la nek dañu nek Burkina wala dañu nek Gambie fi Sénégal la fédération sénégal de basket moo bu 14 ligue yi nga xamne mo na ci région yi su xamul ay texte na dem jang texte te ñu jéem xamne sport rek mom mo wad bu wootee du xajale day dem tribunal yoon may na ko tribunal waye mom tam na xamne fi waxu fek ñoo xamne xamu ci sport dara moom dafa juddu fekk ma ci basket. Mbàkke kenn mënul wax basket histoire basket te boolewuma ci man Abdou Dia kon ñu ngi koy wax mu dal. te jox nit ñi cër xamné basket bi amul benn ligue bu fi mën a fonctionner te fédération cautionné wu la benn ligue moo fi am muy la ligue bi ñu wote le 20 beneen ligue amu fi su fekkee beneen ligue am na fi 6 club ñoo ne ci région bi 5 club yëpp ñu ngi nekk ci ligue bee moom lan la bëgg nañu wax loo xamante ni moo nekk nañ bañ a jaxase xelu askan bi. kon fi mu nekk nii équipe boobu légitimul. moom fan lañ fi le 17 laal ne bu ñu la envoyé ne la reporté nañ AG ba nga ñëw le 20 ñu fal la et puis lu tax mu nangu euh, ci fédération bi nga xam ne moom moom lay ŋaañi tey jii nii moo bu moo envoyé moo envoyé suuf lay envoyé ko club yëpp

ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen di may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi dañ ci moom ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf tremblement de terre moo am démb ci dëkk bi journal Le Quotidien moo ko bind waxul nag terre di suuf waaye terre bi di train express régional bi ubbil yéenekaay bi jëf yi wan daal jumat sëkk la def ci yoonu saxaar gi ne ay nit ñoo dem ba ci diggante kër Mbay Faal ak yëmbal sulli kaabal ya fa sul dagg ca 60 yóbbu ba mu jur ay perturbation yu rëy ci dem ak dikk bi ci saxaar gi soleil national nañu sabotage la boo xam ne tuuti ko noonu mu jur jëye ju rëy ci réew mi ne kaabal yi yor système signalisation yu teer yi dem déterré maanaam sulli ko dagg ca lu mat yóbbu Muntaga Si ba mu demee démb nee na li ñu def def nañu jëfi nit ku silwisewul soleil national dolli ñu ci ne gars yore train express régional bi porté nañu plainte contre x ba ubbi nañu ci ab enquête enquête dina kay nañu kii jiite apix di Mountaga wax na démb ne li xew tax na ba lu mat fukki junni doomi aadama ak juróom baaxowoon doon jël train express régional bi doon dem ak dikk dem ak dikk da leen a démb bés bi le jour nañu yàlla baax nekkoon musiba mbabakumba di a di Abdou Ndéné journée filmé nañu leen réew mi quotidien xamal ñu ne waa APEX ginnaaw bi ñu ñaawloo jëf jooje nee nañu duñu ko bàyyi mu jàll moo fi newoon premier ministre bu Sénégal newoon fit président conseil économique social ak environnemental tey ji mooy tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu jëm loolee ko Macky Sall dénk yéenekaay bi nee nañu am na fu mu ca mane moom Aminata Touré waaye am na fu mu ci tële mi mi ngeeki atu ngir doxal li ko Macky Sall dénk waaye it mi ngeekub handicap boo xam ne waree su koo négliger àndub Aminata Touré ak Macky Sall tribune li mu ci gis ba bind ko moo di ànd fukki at yoo xam ne jurul dara booy seet maaram ak biraan lañu ànd ñu tàqaliko wuñu yéenekaay bi nañu teyit bu ñu fàttali ko moom Aminata Touré moo fi noon Macky Sall mënut a def troisième mandat le mandat xëy ko jagleel xëtamu njëkk ba dañuy wax fi mu jóge ak a seen muy ñëw mu di alliance gi am ci diggante coalition yeewi askan wi ak coalition wàllu Sénégal ngir législatif yi loolee bu sottee l'info nañu du jur jàmm ci benn bokk yaakaar bu ñu moytuwul fanweeri département ak juróom-benn ci réew mi dinañu mujj ci yeewi ñaar fukki département mujj ci wàllu Sud Quotidien nañu koo kaawal opposition bi bëgg mu di ne nguur gi ab kurpañ tipp mu ne ci suuf këpp dil bi ñu tekk ñoom waa wàllu Sénégal ak waa yeewi askan yi ba def seenuk alliance ku bëgg xam fi ñu ko tekk xooli ko ci Source A nee nañu di Karim union seen digg ak ñoom Ousmane Sonko ba ñuy signé accord bi yéenekaay bi nee nañu Mamadou Lamine Thiam bu Parti démocratique Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall bu yeewi a régler ndax l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne kenn ci kàngami parti bi di Mayoro Faye wan na ginnaaw PDS ndax xol bu naqari Mayoro Faye nee na dafa gis ne dañu ko tuutal Vox Populi nañu place gi ñu ko teg ci investiture yi loolee moo ko mitti ba tax mu dem yoonam Les Échos nañu Mayoro Faye nee na pare na ci PDS te lépp na Karim Wade la Karim da ko war da ko moo tarayir Karim Wade purux la du gërëm ñamu daaw ndax guddil naa ko fu nekk bëccëgal naa ko fu nekk waaye gisul loole liise ko nañu te nag du Mayoro Faye rek moo gedd génn PDS ne Cheikh Mbacke Dolly moom it dem na yoonam moom it nee na parti bi da koo war ba tax na diggam ak PDS c'est fini jullik tubaab li ñu jël kii di Abdou Mbacke Dolly teg ko ci kawam loolee moo ko ñuluk Cheikh Mbacke Dolly nee na paakab ginnaaw la ko waa PDS jam liste parrainage yi ci élection législative yi l'observateur nee nañu ci ñi déposé woon seeni liste am na ci ñoom ñeent ñu ñu rëkkale Bougane Gueye Dany la Adama Faye Serigne Mboup ak Fadel Barro transfert d'argent bi wóor Ria. seen savon yi di créole. ak seen déodorant Malaysia Umo. ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi. xibaar yi gis-gis. mbokk yi ñu yegg seek yéen léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee jëm ci wàllu ndimbal gi nga xam te ne nguur gi ah, da ko jagleel njaboot yi néew doole yi loolu nag ah, jaarale ko ah, ci koppar ñu mu leen di jox xew-xew bi sax jëm ci wàllu woowu di koy amal jamono ji ci teewaayu njiit réew mi ci Grand Théâtre waxtaan lu mel nag daañu ci ànd ak ñaan di ci seen xel màcc ci wàllu koom-koom muy Souleymane Astou Diagne di économiste nekk jàngalekat ci université Alioune Diop bu Bambey monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu. Okay. jërëjëf dañu antam ci waxtaan mi ak muniru njay muniru njay moom tamit d' économiste nekk jàngalekat ci université ibader eh, cam bu thiès eh, moom muniru njay eh, kon ña ya, dañ ñu ànd ak moom ci yanam tuuti ci waxtaan wi laata loolu kon dañuy ànd ak souleymane sidiagne souleymane sidiagne président kon nag di tàmbali tey ji opération bu jëm ci cash transfert koppar yu ñu jaarale ci téléphone yi le toll nu ci 540 000 njaboot ñu war leen ñu jox 43 milliards ñu war leen ko séddale njaboot gu nekk 80 mille la war a jot euh, yow naka nga gisee euh, lu ni mel euh, xalaat boobu jëm ci jox ay koppar nit yi nga xamante ne dañoo néew doole. waaw en fait li ma ci mën a jàngat en tant que économiste mooy di joxe noonu ay transfert ci ay ménages yi nga xamante ne dañ wax ne dañu bëgg dimbali te amul contrepartie ci wàllu koom amul effet bu am solo ci ci dund nu ñooñu ñu koy jox amul aussi effet bu bu am solo également ci koom-koomu réew mi. ndax lan je pense que ndax la euh, amul effet ci ñoom ak koom-koomu réew mi. amul ma ne amul amul jeexital. Mhm. boo boo xoolee ci ñoom ak ci koom-koomu réew mi. Mhm. li ko li tax mooy. Mhm. transfert balaa am solo déjà euh, day day régulier bu fekkee ne régulier wul également dafa war a tënku ci la nga xamante ne contrepartie la mooy dafa am ñoom lu ñuy def lu tax ñu jox leen loolu mais bii euh, benn envoi la ñu jox ko ay famille nga xamante ne ni ñu ko ciblé sax ñun déjà ñun xamuñu ko et puis euh, de manière générale du am ben effet parce que am na ay cas yi nga xamantene ne mën nañ leen ko jox am na Niger defoon nañ ko fa defoon nañ ko également Madagascar def nañ ko yagul également Mali cas yu mel noonu mhm. boo xoolee effet yi ci wàllu koom-koom euh, amul benn jeexital ci li nga xamantene moom la ñu bëggoon def euh, lañ bëggoon am comme résultat donc pour man mhm. nguur gi dafa war a jënd ci logique gu assistanat bi mu bëgg population yi à chaque fois di may ay tund di envoyé ay xaalis attaqué vraiment problème yi nga xamante ne mooy problème koom-koomu Sénégal et problème yooyu. Mhm. pour tënk ko rek. parce que euh, maintenant mais man tamit xam nga tamit euh, jamono ni mu mel ni nit ñi sonneeg yooyu noonu euh, xëy na quatre-vingt mille ku amul dépense tey jii boo yëkkatee quatre-vingt mille jox ko ko arrangé nga ko ci lu bëree bëri di nga ko fattal bunt yu bëree bëri. ci wàllu dundam alaaji njóogu loolu man man weddi wu ko. mais dama ne bu fekkee ne nekk dañ lay pour benn wala ñaari fan wala une après le reste de l'année bo jenne tey après pour am fo suturloo mënoo ko am mënoo liggéey sa njaboot liggéeyuñu mais à quoi ça sert. Mm-hmm. lii gën a wante de mo tane nen tam mo tane nen de. mais non comme pour mo tane nen loolu loolu yow li nga ni c'est le langage courant. Mm-hmm. man en tant que spécialiste man je n'utilise pas le langage courant damay xol li nga xamante ne mesure le ak objectif yi ñu ko yi ñu ko assigné ma xol ndax est-ce que oui ou non mën na. andi jeexital wala mënu andi jeexital. Mm-hmm. te man loolu mooy sama wareef en tant que scientifique ma wax leen na que état bi waroon na jël yeneen procédé yu di distribuer xaalis ay ménage parce que dañu sonn parce que dañu nang parce que quand même président Macky Sall ça fait dix ans mu ngi fi bu fekkee ne dix ans après ba léegi mu ñu ngi continuer di di di joxe ay xaalis pour assister nit ñi. Mhm. ça veut dire que politique yi nga xamante ne def nañu ko muy les politiques sociales yi nga xamante ne administré nañu ko ci euh, euh, biir Sénégal seen effet tey jii. Euh, euh, baaxul ci ci ci askan bi ak ci économie wu Sénégal. Mhm. man noonu laa ko jàngatee moo tax mu bëgg. ñu mhm. attaqué wu ñoom sur les vrais problèmes de l' économie du Sénégal problème yi ci njëkk bokk na ci ñu gérer productivité bi mooy Sénégal ñi ñu duñu liggéey lu bari te loolu dañ ci war a taxaw liggéey bi ak euh, ni muy amee ci biir réew mi il faut que état bi jël ci ay mesures claires dans le court moyen et long terme. Mhm. beneen bi infrastructure yi nga xamante ne ñoo nekk. Euh, euh, supportu économique. bi ñu que densifier nous pouvons que densifier pour ouvrir un corridor au Sénégal oriental Saint-Louis à région du Fleuve ak mhm. potentiel agricole bi ak potentiel économique bi mën a éclore si ay ay logique chaîne mais aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes d'acheminement euh, produit nga xamante ne dinañ ko produire du Sénégal. Mhm. et qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui économie même boo jëlee xoolee euh, lii bi nu mu tuddati euh, oignon bi yàggul. Mhm. am ay problème de stockage. Et mhm. nga xamante ne oignon bi dañ ko bay après finalement dañ ko mujj di suul wala ñu mujj di ko di ko donc l'eau le demee en en région de Casamance également potentiel agricole ou Casamance di tax mënul éclore également beaucoup na ci problème Euh, euh, transport ak mhm. kon yow daal li nga gis mooy ay nit euh, joxe ay transfert ak jox nit ñi ay xaalis ak yooyu ndimbal du rek lu rek lawul problème bi li rek la problème bi. mooy fexe ba ma ñu am li ñu jàpp comme ni ñuy wax rek jox nit jën chaque jour jàngal ko nuy nappee moo gën. par rapport ak comme au Sénégal. Mhm. mais laata cash transfert bu mi, bi eh, gisoon nañ programme bourse sécurité familiale 25 000, mille njaboot gu nekk euh, ci diiru euh, ñetti weer par ñetti weer loolu tamit euh, da ngay wax même chose ngay wax que ne yooyu yëpp du luy régler problème yi du saafara ndóol ci réew mi. xam nga xam nga bourse bourse familiale sax bourse familiale sax logique bi xaw na wuute ak ak bii parce que bourse familiale. transfert bi transfert bu régulier c'est-à-dire que tous les trois mois de recevoir benn somme pour euh, toll ci vingt cinq mille objectif bi mooy euh, dañ ko dañ dañ les enfants. dañ ko dañ da ngay fi say doom école euh, def def donc genre lien la bu ñu doon créer ak yenn famille vulnérable yi pour tirer leen par rapport ak ñoom seen nekkin ci biir réew mi loolu ça tu peux le comprendre mmh. même si il faut dire que également dans les pays où ça a été appliqué essai bi aussi amul jeexital noonu ci comme comme bi mais c'est pourquoi mais wax il faut que nous revenir à la base base bi mooy il faut que nous une économie performante et loolu mu amé par li sans wax productivité bi ci infrastructure yi maîtrise de l'énergie ak euh, euh, formation ak euh, ak éducation au Sénégal. Sénégal hmm. le tant que defuñu ko di jël xaalis distribuer à gauche à droite je pense que nous avons bénéficié jaxital te aussi en tant qu'analyste, en tant que analyste euh, dafa xaw dafa xaw a lëkkaloo tuuti ak agenda politique bi parce que mhm. on est à deux mois des élections municipales mhm. euh, des élections législatives est-ce que nguur gi aussi du du fekk ne euh, loolu moo tax muy jël di di joxe montant bu mel noonu mhm. même si on sait que bon ils vont le nier mais ut ñu leen wooteel ak yooyu noonu di neexal nit ñi pour ñu woote leen ci élections législatives yi ñu dëg ma mais bien sûr on y pense parce que à deux mois des élections législatives ngay distribuer quarante trois milliards mënoo mënoo empêcher nit ñi ñu xalaat loolu mais 43 milliards yooyu déjà ak euh, gafa nguur gi ak fi àdduna toll est-ce que tamit après sax euh, wàllum charge yi nguur geeg yooyu ak li ko war euh, du nekk loo xam te ne fa lañ koy jëlee fa koy jëlee après dina am ay njeexital tam ci gafa ga nguur gi. mais bien sûr xam nga aujourd'hui boo xoolee dette Sénégal <coughs> dafa yokk yokk bu jéggi dayo ba commencé fi ne ni inquiété alors te ba léegi ñu ngi jël di di di di di di di di def ay transfert dans dans le cadre d'une politique sociale politique sociale nag boo koy def digantaan day fekk aussi économie du produit de la richesse mais doo doo jël xaalis ba nga xamante ne dañ ko war a def dans l' investissement ndax tey jii beaucoup de secteurs aujourd'hui ñu ngi manque ñu ngi manque investissement public pour mën a pour mën a développer wu xoolal problème yi ñu yi ñu jënd ci santé bi euh, naw sa sa gaañu euh, Louga ci problème mu asu soxna ñuy wax naan waaw état bi deful lii hôpitaux yi amuñu lii hôpitaux yi amuñu lële et cetera école baa ngi nii on accueillir également investissement public parce qu'on a plus de 6000 000 abris provisoires au Sénégal école état école actuellement Bif Sénégal état école yi école yi dañu euh, investissement yu les yu école il amuñu courant amuñu faut amuñu sax toilettes pour la plupart des écoles donc l'investissement, ay investissement la état du Sénégal mhm. alors ce que nous ko maintenant dañuy jël Khalis, distribuer famille dont on n'est pas pas sûr que lefficacité garantir parce qu'on a la que l'économie dafa am fonctionner def nañu ko dans des pays comme le Niger comme Madagascar ak fu nekk genre tibu politique humaine, mel noonu. Hmm. li mu comme résultat mooy ne que amul benn effet bu ñu mën a jàpp ci par rapport à comme koomu donc hmm. pour man il faut que ñu xoolaat priorité yi euh, depuis mars également 2021 jusqu'à aujourd'hui dañu gis ne dafa am benn cadence bu am doole euh, bu gouvernement Sénégal jël injecté. Euh, de, euh, de, de l'argent par rapport aux jeunes et par rapport également à certaines couches de la population. En 2020 moo nekkoon euh, Covid bi mooy jamonoy Covid mi après comme comme beeg ak tey guerre Ukraine beeg non, non, nit ñi jamono dafay gën a metti. non non même même après Covid actuellement ni économie mondiale déjà contexte de difficile. et je vous dis également en 2023 on on prévoit une récession. récession de l'économie économie économie mondiale en 2023. parce que mmh. actuellement il y a une tension bu ñu créé entre l'Ukraine et la Russie bu andi ay problèmes de bari. Mhm. également Covid Covid bi mu commencé à reprendre un peu en Asie euh, notamment en Chine di créer une incertitude ci économie bi ci prochaine donc il faut également état du Sénégal sur le su ne mhm. euh, pétrole bi. Mhm. mu ngi augmenter prix de premier ministre yi ñu ngi augmenter donc yoy ay problèmes yi nga à après les dalaat ci Sénégal. voilà nañ ñëwaat ak yow Souleymane. mu Ndiaye euh, Mounirou Ndiaye teew na nañ ñëwaat ak yow ci waxtaan wi euh, Mounirou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waaw dégg nga Souleymane li mu wax moom gëmul ne ay cash transfert ak yooyu mooy régler problème yi euh, ndaxte impact bi moo doon am ci koom-koomu réew mi ak ci ñi ñu koy jox sax du ko am ndax ànd nga ak moom ci xalaat bu ni mel ci na loolu du régler problème il faut attaquer les les problèmes réellement à xool loo xam te ne politique yuy dimbali askan wi koom-koom yi suqaliku. waaw damay ànd ak Souleymane ci li mu wax parce que du tey jii lañ commencé def ay programme euh, de bourse sociale parce que loolu yàgg na fi c' est vrai que contexte bi ça s'y prête parce que boo xoolee États-Unis sax daaw euh, ci at 2020 bi séddale nañu ay ay ay ay chèque wu un million un mille mille dollars du moins ay ay des millions de ménages loolu am na mais Sénégal aussi euh, li États-Unis mën Sénégal mënu ko ñun structure économique gi nekk biir États-Unis loolu la ñuy wut ñun pour dem ba nga xam ne day nekk mécanisme institutionnalisé mais xam nga à chaque fois tu viens de manière sporadique ngay créer ay programme te programme yi nga jotoon a def évaluation bi ci waroon ak euh, euh, contrôle bi ci waroon ak euh, suivi bi ci waroon amul pour nga mën a am les coups de France xam ni ngay defar parce que bourse social bu ñu koy jox nit dañu bëgg dimbali ko ba mu taxaw parce que jàngal ma napp moom a gënal nga may jox li may dundee. Mhm. mais bu fekkee dañuy dem 2012 léegi ñuy continuer di créer dama ne ñi ngi saax saaxee àll di ko foyee di ko politiquer loolu moom. Macky Sall amuñu benn problème ak moom ñun système yi la ñuy waxal ak li nga xam ne moom la moom la def ñun mhm. Sénégal dañu xëy li li doon am solo sax mooy fekkoon ne jox nga nit ki dara après beneen at bi ci topp nga gis ne euh, génn ci ndóol wala euh, situation euh, tane na mais apparemment loolu yëpp amu ci xam nga boo demee dana la way dafa am ñoo xam ne dañu doon jox seen i doom ñuy jàngi di ci financer seen i ak yooyu mais dañoo war wax ñan lañ ci financer ba am ci bac nan différence bañ am ci BFM ak ban suqaliku la indi seen dund ba tey ji ñu war a taxaw ne ñoom soxlaatuñ ko ñu war ko jox ñeneen parce que loolu dafa war a am évaluation buñ ci def mais su fekkee dañuy continuer di ko def chaque année dañ koy bëggaat parce que bu réew demee pendant dix ans ngay def benn programme ñëw di soxlaat programme yooyu mooy na ko waroon defee defe woo ko donc dañuy appeler président Macky Sall moom mooy nañu jubbante réew mi te ñu am na ñoo xam ne boo waxtaan ñoom ci loolu dañ naan la ah président dafa xaar rek élection législative yi na na wut ay bourse rek am ñum appâté pour ñu botal ko yooyu moo war a ci biir réew mi lillahi wa rasulihi je pense que ñun Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ bàyyi politique bi te ñuy xool li nga xam ne moo ak kan bi li ñu bëgg moom mooy dem ba Sénégal am croissance ak développement buy tax ay surtout économique lutte contre le chômage bu dëgër buy tax ba benn Sénégal lu soxla ñu jël xaalis di ko ko jox su ko defee nguur gi la mu am ci alal lañ war la sooxe ci santé bi Soit l'éducation, éducation bi Soit infrastructure sécurité parce que Sénégal xam nga gendarmerie ak police soxla moyens parce que gis ngeen insécurité bi tay rek. Hmm. nga ba ay ay ay ay cuivre yooyu ñu sàcc ko fa donc je pense que am na yeneen producteurs yoo xam ne état war na gën a def effort pour que ñu vraiment problème yooyu ñu réglé ko tañ bàyyi vraiment di politiser aussi les programmes de développement. Ah, Mounirou Ndiaye nañ ñëwaat rek euh, ngir jeexal euh, juste euh, Souleymane su tey jii yoon yi nga xamante ne moom la ñu war a jaar même politique sociale bu fekkee ne mënta ñàkk yan yoon lañ ko war a jaarale ba nga xamante ne dina am njëriñ pour ñëpp rawatina ci askan yan yoon yan ñu war a jaar ba nga xamante ne politique sociale donte mënta ñàkk mu nekk loo xamante ne dina am njëriñ pour askan wi. waaw euh, euh, politique sociale bi ñu war a bi ñu war a jaar je crois mooy li Mounir wax rek. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, nañu taxaw ci les vrais problèmes de de l'économie sénégalaise vrai problème yi wax naa ko sànq c'est la faiblesse de l'investissement privé c'est également manque infrastructure yi nga xamante ne ñoo nekk support à l'activité économique c'est également la question du capital humain à à dire les formations et euh, l'éducation ci sont réunies. mi tout tout bu monde que vous dañuy que dans des domaines génériques mais l'union formation d'être que priorité par rapport aux euh, besoins besoin besoin économiques au Sénégal et donc l'olie vous bu fekkee ne état bi à chaque fois depuis 10 ans nous systématiser les politiques sociales de distribution de vivres de transfert euh, euh, euh, monétaire pour man loolu day wane ne que vraiment c'est ci fi nga xamante moi permettre à ce que une autonomisation des couches populaires mën a mën réaliser quoi et pour man loolu mooy li munir wax rek il faut que ñu arrêtions, il faut aller réew mi ci loolu nous injecté xaalis bi xaalis bi nga xamante ne Sénégal yi ci secteur moteur économique agriculture banque, fi, fii ak ak maîtrise de l'énergie également donc domaine yu bare bare bare bare ñu ngi fi yi nga xamante ne dañ ci pour que Euh, euh, classes yooyu mën a retrouver des emplois Euh, euh, euh, yu yu nekk des emplois de qualité et durable et leur permettant en fait euh, vraiment ñu ñu jënd ci quoi. Mhm. jërëjëf Souleymane Astou Diagne di économiste yi jeexal ak Mounirou Ndiaye kon yéen nag yak Souleymane Astou li ngeen gis daal mooy nguur gi jamono ji ndimbal yeeg transfert yeeg yooyu yëpp da ko war a ci suuf fexé ba nga xamantene dina soxali koom-koom bi askan wi soxaliku au lieu ñuy dimbali nit ñi ñu nek ñoo xam ne dinañ di jàppale saa su ne dinañ di taxaw waaw xam nga li Souleymane wax man li may proposé Maître Macky Sall bu fekkente ne bi gouvernement bi politique tax ko jóg nañ xool registre national unifié bi moom mooy fi ñuy loolu yi nekk mhm. ñu xool famille bu ne ñu xool kan moo fa am position pour am liggéey parce que euh, euh, Sénégal mais distribution bi si euh, RNU boobu lañ ko basé. registre national unique jàmbar mm, ñu ngi doon wax sax ne dañuy gën a yokk lim bi cinq cent quarante et quelques mille la dañuy dem ba un million gën ko yaatal. ngir gën a mën a jàppale le maximum de ménage. moo tax ma ne nañu fexe ba. réunion boobu ñu dugg fa xool famille yooyu famille bu ñu dugg ñu xool ñan kan moo fa gën a am position pour am liggéey dama ne la Sénégal am na benn forme de rationalité relationnelle bu fi am mooy nit ku ne boo amee liggéey rek da dimbali say mbokk dimbali ñu leen jege ñu xool ñan ñoo fa nekk dans le chômage ñu accompagner leen ci programme de recrutement yi état boo xoon mooy programme d' bi ak auto emploi bi ñu accompagner fa ay nit yoo xamante ne bii dañ leen di per fexe ba ñu am liggéey au moins famille boo ci indi kenn muy liggéey rek dina am benn ndóor bi dana wàññiku famille boobu su ko defee ñu jël programme de de recrutement bi ak programme de de lutte contre le chômage bi ñu développé ko vraiment fonds yooyu yëpp ñu dugal ko fa je pense dina am résultat. Ah, jërëjëf Mounirou Ndiaye ñi koy sant kay gërëm moom Mounirou Ndiaye di économiste nekk enseignant chercheur di jàngale ci université Iba Der Thiam bu Thiès del tam di gërëm euh, Souleymane Assa Diagne moom tamit di économiste nekk jàngalekat ci université Alioune Diop bu Bambey mbokk yi mu nekkoon gis-gis nekkoon tam xibaar yi El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi Aliou Baax ak Mame Diarra Dieye ci production digitale Yacine Pouy réalisation Salimata Aw ci kanam tuuti